salaam mbokki safin fi 7 TV maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp di ñëw kon chef shot ak tenu gën a fës ci journée tey bi tombé le lundi 29 octobre dañuy commencé ak club bi di Chelsea bi nga xam ne pare nañ pour fay lu tollook 100 millions d'euros ngir nag mën a am joueur Barça bi di Gavi waa Barça seen na côté waxuñ dara si waxu jaay seen joueur bi di Gavi waaye nag jafe-jafe ñu am si wàllum ko par tax na nag ñu mën a jaay seen joueur bi di Gavi su fekkee nag offre bi ëpp na lu tollook 100 millions d'euros te Chelsea nag pare nañ pour def ko si beneen joueur bi nga xam ne nag Chelsea bëgg na ko muy Jadon Sancho kon waa Chelsea doole ko nañ si club yi nga xam ne ñoo soxla Jadon Sancho bu Manchester

nekk foofu sa Arabie Saoudite fekkee naka jóge na Manchester City ci di Jamal Musiala lañ bëgg ngir naka mu remplacé waa Newcastle gannaaw bu ñu suspendre seen joueur bi di Sandro Tonali bi nga xam ne da koy tere joueur yi moo tax naka ñu suspendre ko lu tolloo ko fukki weer yoo xam ne du ko mën a fubal Newcastle nag la bëgg may utal Sandro Tonali remplaçant te nag joueur ñu ciblé bokk na si Calvin Phillips bu Manchester City Scott ñeenti joueurs yooyu noonu man euh, Newcastle bëgg na si am kenn gi nag remplacé Sandro Tonali bi nga xam ne nag dañ ko suspendre Manchester City ak Bayern Munich ñu ngi bàyyi ñu toll nii ngi waxtaan ak Paris ba déggoo am na si diggante ak Paris ngir nag mu prolongé contrat am waaye nag teewul ñaari club yi di Manchester City ak Bayern Munich ñu ngi koy bàyyi xel te bëgg nañ ko recruter Romelu Lukaku bi nga xam ne nag mi ngi def saison bu am solo ak club bi di AS bi nga xam ne dañ ko faa wàccee si nag ñi nga xam ne ne 40 millions d'euros lañ koy jaayee bi nga xam ne nag bi match yu jot a si euh, moo door a jamono Fatick ñaari bal si euh, benn Jaraaf ak Guédiawaye FC dañoo nul ku nekk dugal sa morom euh, benn bi tey si dimanche bi dinañ wayal journée bu njëkk bi si diggante Stade de ak Génération Foot Gorée mooy dalal la jàmbaar AS Pikine Wakaam la yam Casa Sport am Linguère suba 16 h dalal Dakar Sacré-Cœur si Ligue 2 bi ñoom tamit amalagum nañu ñaari match Demba Diaw FC AS Douanes door benn bal si ya dara Thiès FC Oslo door ko ñaari bal si ya benn kon na tey jii nii première journée si Ligue 2 bi day continuer HLM Dakar mooy dalal la Amitié FC AJEL bu Rufisque am ma NGB ñaari tali Duc am ma Kër Madior Walidane am ma Snep Seksana suba 16h30 RS Yoff dina dalal foofu la ñuy yemale xibaar yi di leen jox dig daje beneen suñu xibaar di leen ñaan ngeen activer cloche jot information yi.